lan la sëriñ Touba waxoon sëriñ Ba Samba si borom daaru daf ni ko woon ma Samba Ceerno di su ma gisee ak su ma gisut du tee mu xam sama jublu